waaw ah, jërëjëf euh, ak kii bi ñu ngi siyaar baax a baax di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nekk ñu weeru suñu ramadan mubaraka ci ndokkeel mboolem jullit yi ak di siyaare mboolem jullit yi nga xam ne ngi bàyyi xel si internet bi di ñaan su borom defal nu tawfeex bu baax a baax di siyaare ak sëriñ bi siyaar bi nag ñu ngi ciy jiital Muntaxa mi nga xam ni mu nekkal Serigne Touba ñaan suñu borom yàggal ko yàlla wéral ñaan suñu borom ko kàttan yéene ji mu am ci liggéey borom ko lépp man ko matali ba ñaanam boole bi ak tànn yi eh, jërëjëf laaj am solo lool waaye sëñ Daaru Musaa Maxtaar ku ko ci liggéey Serigne ndax moom yëngoom ak dalam lépp eh, liggéey Serigne eh, ndax ci Serigne Touba lay na ko ba moom bambaloog lay wax moom mooy tàmbalee sëñ bi yem sëñ rek nga xam ne waxtu nekk rek ñuy waxtaane sëñ Tuubaa di bégal murid yi ci sëñ Tuubaa daala dogal it euh, rek TFM dalaloo ma ci carte centrale boobu nga xam ne dañ ci faral di dalal euh, borom xam-xam yi daal sëñ daan nasara waxtaan borom waxtaane jaar-jaari sëriñ bi euh, bu ñu ko waxtaanee it ñëpp am ci mbégte nga xam ne kenn ëppalewu ko ci bàyyi xel gi bàyyi xel émission boobu nga xam ne am na solo lool ñëpp seen xol sedd lool sëñ Mouhamadou Mountakha mi nga xamante nekk sëñ Tuubaa rek kenn ku ne xam na ni mu am yëg-yëg ci suñ gànn ndax suñu suñu maam bu mu baax moom suñu toit rek ko ñor képp koo euh, moom da mu am yëg-yëg ci suñ gànn ci taal bi yoo xam ne ñu mu déggee waxtaan bi donte sax bokk noonu ci tariixa murid murid waaye ñoom ñu dégg waxtaan bi tax ñu ñëw dox seen bopp si ñun suñu maam bu mu baax ginnaaw loolu it suñu maam bu mu taxaw it sàpp suñu gànn ngir ñëw di siyaare si ko nga xam ne Serigne Gallé Serigne Makhtar ban yàggee ba di siyaar si Mouhamadou Mountakha yàgg na. waaye ya tey la ko yàlla di. door a dogal tey la ko yàlla dogal waaw tey la ko yàlla door a dogal hmm. nga xam ni loolu mooy sababu siyaar bi nga xam ne ñi ko fas yéene amal tey ci mm. bisu tedd bi di yomal jumaa fas ko yéene amal fii kër Sëriñ Tuubaa gi mm. fas yéene jàkkaarloo Sëriñ Mouhamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekk Sëriñ Tuubaa mm. fas yéene ànd ak Sëriñ Gana Messere Makhtar boo leen soppeem yëpp nag euh, ñu ngi fi teew ku mel ni Sëriñ Mbacke Diop mi nga xam ne Espagne la nekk moom tam mi ngi coordonné ay euh, macha allah ak njabootam ñëpp ñëw na ku mel ni Sëriñ Dame Diop mi nga xam ni bokk na ñu jiite sopp yi Sëriñ Xaari Mbacke fas yéene ak Sëriñ Xaari Mbacke ak Sëriñ Dawuda ak mboolem soppe yëpp góor a jigéen mag ak ndaw ñu fii kër si Mouhamadou Mountakha fas yéene ànd ak mu mel ni loolu nekk na beneen ndam encore mm-hmm. mm. nga xam ne loolu nekk na kon beneen beneen ndam comme ni ko nii maanaam nga xam ne euh, nit ñi bañu sëñ Tuubaa waaye dina umpale sëriñ bi mm-hmm. euh, nga xam ni yàlla na kon ñu waxtaane sëriñ Tuubaa mm-hmm. ba nit ñi maanaam gën a gën a bëgg sëñ Tuubaa ndax kenn ku ne xam ne ni sëñ Tuubaa moom buñ jaaree ci li nga xam ne mooy li sëñ Tuubaa nga xam ne lan ko yokkal ko dara wàññiwul ko dara lépp lu wax rek a Tuubaa mm. tax nit ñi gën a am bëgg-bëgg ci ba tax ñu ñëw jox seen bopp loolu day taw feex bu yaatu mm. xam loolu kon ndam lu yaatu yaatu la nga xam ni kon loolu mbégteem moo mm. dem fi ab jibi waaye mbégteem am murit euh, rawatina nag euh, euh, sëñ Mouhamadou Boun Makhtar mi xam nga jekk xam-xam ñor ko nga xam ne day bëgg wax ko rek nit bu ñu sukkandiku rek na doon xam-xam te yonente bi su suñu borom yónnee dañ leen woon fala naqusana ali bi lépp ngeen wax ay nit ñi da ngeen sukkandiku ci xam-xam te teg ko ci xam-xam bu leer hmm. kon sëriñ Gaar Mesere Maxtaar it euh, euh, émission boobu ci loolu la ko ci loolu la la ko hmm. euh, hmm. ba yàlla dogal comme loolu nga wax maanaam muy jiw bu mag a yàlla ñu bëree bëri tam si lislam ñu bëree bëri yëkkal seen alal di ko joxe ñu dindi seen tubaab boole ko di sotti seen i rongoñ boobu mën a jëm nit waaye malay sax ba émosi danoon bàyyi xel émission boobu ngir am bu am solo loolu moo waral tey jii siyaar bi daal ginnaaw yàlla ci loolu la sax boo ba yàgg ba di siyaar seen yooyu yàgg na ndax ab taalibe moom waxtu nekk daa war di solaw daal di siyaar yi ak sëriñam ndax sëriñ Tuubaa daa waxoon ni solu man toxibu way na sarta bi ka daaru waxaalim loolu solu waa waxaaru laa yem na ànd ak bu doon ni siyaarati yi ilan maxima li ma neexoon sawaaru sëñ Tuubaa dañu wax añu sopp ñu rek day siyaar yi kam sopp doonte ay xur ak i montagne daa dox sa diggante ki nga sopp yi sëñ Tuubaa nee na bu mu tee nga sopp sa daa dem siyaar yi moo waral maa ngi daan dem ba Sar Sara daan fa fekk sëñ Tuubaa daan dem ba Murtan daan fa fekk sëñ Tuubaa daan dem ba Thiel Dior daan na fekk Sëñ Tuubaa hmm. waaye même bi Sëñ Tuubaa nekkee ci diir gi sax nekk Gabon am na ñoo xam ne fekk nañ ko Lambaréné hmm. am ñoo xam ne fekk nañ ko Mayomba am ñoo xam ne fu Sëñ Tuubaa ma sa nekk rek hmm. fekk nañ ko te dara warul lu coxeel ngeen am ci Sëñ Tuubaa ndax si yaari sëb sëriñ moom day jural nit euh, eh, tuyaaba yu bëri jërëjëf ah, macha allah jërëjëf macha allah jërëjëf <laughs> sëñ Tuubaa yoroon ak Cheikh Seydina ko yëpp laaj nga laaj bu solo si jaay mooy lan moo waral ñu fii tey ñu ak sëñ bi am si xam ngeen ni dañuy yëngu ci soxla sëriñ Gana Messere Makhtar di ànd ak moom liggéey sëriñ Tuubaa bu xam sëriñ Gana Messere Makhtar taxaw ko mu ba bañ na ko sax ba ko di ko tuddee Soraka boo ne moom Bàmba la ko tuddee ko soxla mooy lu mu sëñ Tuubaa man ma doom loolu nag lañ jàpp ba tax ñëw fii tey siyaar bi nag doonoon na loo xam ne fan yii ci ñu ko doon waaj ba dajaloon ci ànd yu topp ngir ñëw jëmbal sëñ Muntaxa siyaar bi ñaanal ñu ndax addi mën nañoo xam ci ñaata la toll wala xaymaa ko moom maanaam xayma. amuñ ci ndigal. amuñ ci ndigal bu baax. waaye li ñu ci mën a wax mooy. li ñu jullit ñi tey dëgg-dëgg. ginnaaw ba suñu njàngam si Ramou Khtar waxtaanee ci émission fii nga xam ne mooy mooy am tey wax muy quartier général. émission bi jàllee dafa am lu rëy a rëy lu mu def ci réew mi. émission bi xam ngeen ne àdduna wala nga képp ñoo ko doon seetaan. bi ñu koy seetaan nag li suñu daan doon wax ci Serigne Touba doy na nit ñi doy nit ñoo xam ne wér na wér yoo xam ne kenn ku ne gis nga sa bopp ba am ay nit ñoo xam ne dañoo bokkoon ci beneen tariix Euh, mbir mi suñu daanal waxtaanee yóbbu leen foo xam ne jéggil lay ñu daal ñun suñu mën a àgg rek jébbal ko boppam pour mën a ànd ko jël suñu daal ñu ci àgg loolu moo ñu fi tey hmm. mbooloo maa ngi nii ci biir saal bi ak gis nga ko saal bi ñu feesee hmm. mu nekk beneen jéego boo xam ne teg ngeen waaw beneen jéego boo xam ne daal euh, man la sëñ Tuubaa Muhammad Ndam rek hmm. sëñ Tuubaa Muhammad Ndam waaye suñu daal Moussa Moussa Muhammad Ndam ndax moom wax bu nekk day faral di wax ne man sama yitte yëpp rek mooy xam ne mooy tax mooy xam ne sëñ Tuubaa mu fo man fu ma xëyee ak may kon sëñ Tuubaa mu morom laa bëgg nit ñi xam saal baa ngi fees del niñ ko waxoon léegi ñuy ànd seen xarit bàyyi ñi xam ne kilifa soxla yi ak sëriñ Mbacke Diop nga xam ne moo jiite mboolem soxna boo xam ne soxna sëñ daana ci ramukaan yi nga nekk ci Touba Espagne ay ay ay ay ay magam ñu ngi fi ay rakam waa sëriñ yëpp ñu ngi fi sëñ sëriñ Moutar ko moo jàll ba Mara mi ngi fi sëñ Amndiri Diall Gaye sëñ Mor Talla Kan bu Lampal FM sëñ Daawula Ndiaye sëñ Sëñ Ndiaye Gana bokk yëpp daal ñu ngi fi saa ni mu mel ni tey kenn ku ne boo ko joxoon kàddu mën naa mën naa wax mën naa wuti sëñ Diall jërëjëf ay sëñ Diall yu bari dëgg la macha allah jërëjëf fàttali ñu tur bi Dame Diop Dame Diop